dañu daje fii ci Las Palmas tax xam nga ñu ngi ci campagne électorale ñun suñu programme dañuy dem ci quartier di animé tey nag Las Palmas moo aye woon te man maay maay euh, c'est-à-dire Benno Bokk Yaakaar euh, ñi fi nekk responsable parti bu ne am na responsable am yàlla def na man maay seen coordinatrice nekk coordinatrice su commune bi en même temps donc ñu daje woon tey euh, pour animer quartier bi donc ci animation boobu lañu nekkoon tey moo tax nga gis ne Euh, nekk na lu neex euh, ndax euh, ñu ngi jëm ci élection kon ku nekk war nga seet say mbooloo war a waxtaan ak ñi nga dëkkal donc loolu moo waraloon tey ñu daje fii. ñu gis ne fi nekkoon njiitu réew bi ndax amoo leen tuuti tiitaange mu andi ne moom mooy falum njiitum xam nga loolu amul tiitaange ndax moom dafa def élection sénégal yi ne ko dootul yow. léegi moom dafa nekk koo xam ne tey jii dañ ko war a tiitaroo ndax nekk na fi président bi jóge fi kon tey jii dafa bokk ci monument historique yi nga xam ne dañ leen di war a damoo euh, bi nga xamee ne Senghor jox na Abdou Diouf pouvoir bi dem nanguwul dellu si dafa dem Abdou Diouf bi nga xamee ne Ablaye Wade gañe na ko tamit ba mu demee ñun def nañ lu ne pour mu dellu si bu doon ñëw Sénégal sax du bëgg ñu teeru ko génn ci nee na affaire politique comme sénégalais yi tànn nañu keneen defe naa Ablaye Wade tey loolu la waroon def euh, ñëw ñëpp bëgg ko ñëpp teeru ko teeru bu rafet mu am ak ñëpp jàmm nekk conseiller sax ku fi war a nekk njiitu réew waaye yii muy def euh, waa moom nag noonu la parce que noonu la mu a dundee comme opposition def na ci 24 ans soog a am pouvoir day fàtte sax ne moom xanaa nekkoon na ancien président donc bu ñëwee day xumbal euh, yëngal mais loolu tiitaluñu. waye nak ci élection législative bu mu ñëwé am na euh, li nga xamné rek moy changement bu mu andé ci li nga xamné moy doon bi li gën waro na gagné yeen wa benn bokk yaakaar am na lu ci top ndax loolu tamit bu ñëwé ci présidentiel bi ni du am lo xamné wa da ko ciy man de li mu si jaaxal na ma ndax ñun ñu ngi nekk té euh, assemblée témèr la ak juroom benn fukk ak juroom té ñun ñu nga yore témèr ya ak fanwer ak ñent kon xam nga li ci des barewul kon coppite bi mu indi ah baxna ndax am na groupe parlementaire waye budul lolou gisuma lu mu chomp lo xam ne nañu dara. wa fan ne ñun dañu faratal visite de proximité naanaam dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi waxtaan ak ñi nga ne xamugañu ku ñuy voteel waxtaan ak ñi nga ne mosuñoo ren lañu ñuy am sen carte. waxtaan ak ñi nga xam ne seeni parti dañu buggoon dem waaye amuñu euh, jëluñu leen euh, seen parrainage mutul donc euh, ñu ngi toog ci seeni kër am na ñoo xam ne seeni kilifa sax dem nañu jàppale beneen candidat te ñoom bëgguñu jàppale candidat boobu ñoo ñëpp foog ñu waxtaanax ak ñoom pour indi leen ñu nekk ci suñu électorat donc loolu mooy wax ji sinon keroog ñu nga demoon littoral 1 muy cité SHS enseignant amo troit ak cité kii nuñ koy waxatee Bada Thiam Eh, bis ba ca topp ñu nga demoon cité douane cité Atepa station 10 eh, démb ñu ngi woon fii mi ñu ngi Las Palmas eh, le 13 am nañu meeting communal boo xam golf yep ñoo koy bokk bu ko defee le 20 nag président candidat bi ñëw fi tamit ñu def meeting bu rëy donc li ci des yëpp mooy naal dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi moo ëpp solo. waaw xam nga Ablaye Wade moom bu ñëwee day yee fitna rek parce que 24 ans def na ko ci opposition day fàtte sax ne moom. nekkoon na président wala fi mu nekk tey jii moom dafa bokk ci ñi nga xam ne sénégalais dañ ko war a respecté ba tax na su xam nga sànq ñun ñu ngi buggoon def suñu meeting bi buntu hôpital Dalal Jàmm waaye waa këram yaa ngi ñëw def seen podium ci suñu wetu bâche moo tax ñu toxal ñëw ci koñ bi bàyyi foofu ndax euh, Sénégal benn la te ñun ñëpp ñoo bokk te Guédiawaye nag dafa am particularité ñoo bokk lépp quel que soit bi ñu nekk ñoo bokk lépp moo tax ñu bàyyi ko foofu ndax euh, bu ñu xeexee xale yi géejawaay xeex bu ñu reyantee xale yi géejawaay reyante moom day dal di ñibbi fa mu nekkoon moo tax ñu bàyyi ko foofu ñoo meeting fii ci